ومثل فيما مدى لم يكتب من ظن أنه يماثل الرسول jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi wéyal suñuy reportage ci bis bu am solo bi nga xamante ni moom lañuy ñuy fàttaliku giseeb ku tedd kat yi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak maam Thierno Birahim borom Daarul Moxti ginnaaw tukkeem bu am solo boo bule moo tax nag ci ndigalal xalif général kulu murid Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbàkke ci kilifteefuk sëñ Basiiru Mbàkke Anta Ñang waaye nag ci teewaayu alaaji maam Ceerno Mbàkke moom sëriñ Seex Awa Balla ñoo ngi fii ci kër jëmm ju tedd jëmm ju sell koo xamante ni ay at yu bëree ngi nii ñuy ak moom màggal gi muy euh, sëriñ Moustapha Mbàkke moom alaaji maam Ceerno Mbàkke moom sëriñ Seex Awa Balla ci bis bi nga xamante ni dañ ciy fàttaliku gise bu am solo boobu moo tax nag bi ñëwee ci sëriñ Moustapha ñu fekk fi xam mooy njoolum sëriñ Seex Awa Balla sëriñ bi jox ko kàddoom ngir bis bi ak itam taxawaay bi nga xamante ni bii Cheikh Amadou Moustapha Mbacke am na ko ci bisu tay bile ak taxawaay bi nga xam ni mbooleem taalibe yi am nañ ko waaye itam sëñ bi jox ko ndigal yëkkati kàddu yi cant ak kàddu yu ngërëm jëmale ci mbooleem taalibe yi nga xamante ni ñëw nañ ci bës bi wala seen loxo tabi ci wala itam ñu bëggoon a ñëw ci yàlla dogal am amuñu euh, jotug ñëw waaye itam yéene itam agsi ci liggéey bisimila sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu yàlla julli ci Moustapha sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul di ñaan rek si mun taxaa yàgg waaye nag noonu ko ñaanal suñu jàmbaar ji alhaji maam Coorom sëñ Cheikh Balla yàlla na fi yàgg loolu te wér waaye nag noonu ko ñaanal suñu jàmbaar ji nga xay mooñ suñu ginnaaw joxantu kaddu ñu sañ a wax ñu ngi siyaar ñëpp di jéglu ñëpp di bal ñëpp xadina ba di ñaan ci barke bis bi lépp loo xam ne ñu ngi ko ci wut yàlla na ko am waaye bis bi bis la boo xam ne lépp lu ci waaye def sa bopp ko defal muy mag daarul mooti keroog ba yàlla dogalee maanaam Serigne Touba jóge ci tukki bi wàcc ndar woolu Cheikh Rafati ñu yendu ba ngoon mu ne ko Ceerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko ndax su ma demoon su ma su fekkonte ne maanaam yaa dem ma toog ndax danaa man lii loolee ngërëm féetoo ko kaw muy bis bi nga xay moom lañ njëkk a gisee moom bi mu jógee tukki bi bis boobu nag la ñuy màggal muy nuyu sobaan fukki na bis ne sëñ Bassirou mu ne ne ko bu fekkente ne da nga ma bëgg di gis de na ngeen féete poroxaan benn bis rek laa ko génn muy nuyu sobaan fukki fan ak juróom nifu sobaan bis boobu xam ne maanaam yàlla na muy bis boo xam ne képp koo dem nga Darou Mouhty de fa nga may fekk kon kon siyaare bu baax mboolem koo xam ne rek yaa ngi dégg baax a baax a baax di siyaare su sang bii maanaam jëmm la joo xam ne nag fii ngeen ñëw mat na ko sëkk ndax moom jëmm la joo xam ne nii muy Cheikh Moustapha Mbacké mi nga xam ne moom na muy doomi Alaaji Maam Coorom sëñ Cheikh Balla sëñ ko fii mu fii màggal te man ko sëkk taalib bi nga xam ne man dañ koy fekk képp koo xam ne fekk ko fi jëflante ak yow ko fi kon ni mu yàgg fi te wér lépp loo xam ne tamit mi ngi koy liggéeyal waajur bu tedd wi Alaaji Maam Coorom sëñ Cheikh Balla yal na ko yàlla kattanal dëbb ko kattan ba nga xam ne ni nga ko bëgg noonu la ko amee waaye jëmm la yoo xam ne di képp koo xam ne ñëw nga fii jikkoom moo tax waaye na képp koo xam ne ñëw nga fii yërmande moo tax waaye képp koo xam ne ñëw fii yàlla jëmmi borom dër waaye yàlla jëmm moo tax kon kër gaa ngi nii képp koo xam ne ñëw nga fi yaakaar naa ne kenn du ko wax ndax kër gaa ngi fees del defe naa ne dëru ba mu daj képp koo xam ne ñëw nga fi da xam ne maanaam kër yi ñi nga màggal waaye tamit fii ak màggal la kon noo ngi koy siyaare Mbàkke mu yàgg fi téwér lool lépp loo xam ne liggéeyal bëgg na ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa borom Daaru Muti yàlla na ko yàlla kat attanal lépp loo xam ne mi ngi koy jeex ci kër Serigne Touba yàlla na ko daj te boo ko yàlla na ko yàlla na ko jariñoo te boo ko jariñoo yàlla na ko yàlla na ko jig kon mi ngi siyaare ñëpp di siyaare mboolem koo xam ne rek yéen a ngay ci ànd ak bi maanaam ka ca njëkk ba ci ki suuf rek ñoo ngi koy ñaan yàlla defal ko tey jàmm ndax lii liggéey la boo xam ne liggéey gën ko kawe defe naa ne magal ko borom Daaru Muxti nga koy wane lépp loo xam ne yaa ngi koy wane de mënoo wane lu gën magalu Cheikh Fati kon noonu ñu ngi sant bu baax li leen ñaanal yàlla gën leen taxawu seen télé bi li ngeen ci bëgg yàlla def leen ko taw ba nga xam ne maanaam noonu koy noonu ngeen noonu ngeen ko bëggee kon ni ngi siyaar ñëpp di jégalu ñëpp di baal ñëpp ak dina balaax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbooloo fi teew ñëpp kenn ku nekk ak sant ñu ñuy seetaan tamit nee nañu tur sëñ Maam Thierno mi nga xam mooy suñu wasila ñu toogal ko fii ci Rabat ci quartier bi ci Darou Moussi di sant yàlla bu baax a baax tamit ci fekke gi ñu fekkee daaw fekke waa ren ànd ko wér di sant yàlla bu baax ci loolu moom ñu ko may di sant sëñ Tuubaa mi nga xam ne mooy suñ cër di suñ lépp ñu yaakaar suñ yaakaar àddina àllaaxira sant sëñ maam Thierno mi nga xam ne mooy suñ bunt suñ wasila teg ñu fii ñu toogal ko fi li ngeen wax lépp dégg nañ ko lu baax lépp waaye lépp nag ñu ngi koy delluwaat ci moom waaye ñun amuñu lu dul moom mooy suñ lépp buñ nee tudd dañu wax wala ñuy def dara moom moo tax. ndax nit day am loo xam ne ci nit koo xam ne bu ñu doon tudd tey ca egguñ ci kooku kenn du la xam kuñ réere ngay doon faaw bu nee Moustapha Mbacké rek kenn du la xam dañ naa Moustapha Mame Thior ñu doon la bu ñu eggul ci Mame Thior ñu kenn du la xam kon kooka loo am moom nga ko war a gërëmee ñu koy gërëm di ko sant di ko ñaan mu yàgg suñ kanam yàlla may ko wér ak kattan ndax nit bu la fexee ba nga am loo xam ne mën a jaxasoo ak nit ñi teg la jox la yar yar bu baax li mu njëkk a def mooy tur bu baax jàngal la yar la ba nga xam ne jaxasoo nit ñi loolu ñu ko ci sant loolu defal nañu loolu lépp dimbali ñu itam ba lu bëree bari la nga xam ne yenn saa yi ñi nga xam ne ñoo ñoo leen bokk askan sax ñu leen dégg ci loolu te dégg loolu lépp nag mooma suñ njàmbaar du suñ dara lépp mooñ ci yaru ñu ngi ko koy sant di ko gërëmee ndax loolu nag moo waral tamit fii ni ñu ngeen fekk ñu toog fi ab quartier la moo ko moom moom lañ fi nekkal jëwrinam rek lañ fi nekkal di ko fi liggéeyal di déglu ndigalam ak fu ngeen ñu dégg xam nga ni ma dégg ci réew mi rek fa nekk rek fa nekkal di wéy ci ndigalam di déglu ndigalam di doon ay taalibe ci duñ daj duñ dellu ginnaaw duñ waxat benn yoon incha allah fas yéene di ndigalam fu jógee rek ñi suñ kem kattan ba ba ba fañ ci mën a yem di di toog a dégluwaat ndigalam loolu moo ñu bàyyi fii man ak sama mag sëñ Sidi ak suñu rakk yëpp kenn ku nekk fa nga ko dégg loolu moo leen fa bàyyi déglu ndigalam yàlla dimbali na ko ci loolu tawarkàlla yàlla bu cat dugg yàlla na yàlla lafal leen cat ñoom ñëpp bañ am ngërëmu sëñ bi ndax loolu rek la ñu sàkku moo ñu bàyyi fii yéen tamit ñu ngi leen sant ci ñëw gi ngeen fi ñëw ndax mënu ngeen fii fekk na sori na it li nga wax bëri na ñoo xam ne ci dëkk bi ñoo ñu fa ëpp ndax ñun te cër gën a fekk lañ yor ndax sëtaat moom boo ko doon cër yi gën a fekk nga yor waaye na ngeen xam ne ci lañ bokk ngeen boolañ ci ni ngeen sant ñeen tamit seen rajo bi seen télévision yeeg seen ngeen eh, jumtukaay yi ngeen fi ñëw yàlla na ko yàlla yokk ba fu eh, jumtukaayu xibaar dégg yàlla eggale ko yàlla mën na ko ndax yàlla jeexalul dara te loolu ñun ñii di murit mën nañ ko gëm sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa bi nga ne mooy suñu yaakaar ñun ñëpp fekkante wala ak yonent bi ci jamono sallallahu alayhi wa bokkul ak moom am réew bokkul moom ab continent sax mosu mosu ko gis zaahir waaye bi mu dikkee daa xam ne yonent bi li mu am lépp ci yàlla ko jëlee mu ne dann mu ne dann yàlla rek ba yàlla tegtal ko yonent bi waaw bi ko yàlla tegtalee yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam yonent bi yóbbu ko ci ba yàlla yàlla jox ko lépp moo ko wal boppam dala ne yàlla ala muhammadin wa xaadim muhammad samadi kooku na mooy suñ ku nekk sa kilifa nekk sa yaakaar waroo découragé waroo dellu ginnaaw toujours da ngaa yaakaar loo amul ci loo amul da ngaa yaakaar war nga koo mën a am baax waaw nit noonu lay def sëñ Seex Balla ma nga xam ne mooy suñu wasila itam di wasila sëñ maam Coono fi nekk bunt bi sëñ bi nett li nañu boppam ne moom sëñ Seex Balla sëñ Tuubaa ma wax lu mel noonu ba moom daanaka li mu am lépp ci la ko jëlee sëñ Tuubaa da la waxoon ne moom bu ndikkee daa xam ne yonent bi sallallahu alayhi fu mu teggee tànkaru mu teg fa xam ne yonent bi kenn du ko dab waaye bu ko boo defee noonu boo ko deful boo ko deful tam raw ñu bëri sëñ Saaliw nee na ba loolu duggee ci noppam keroog rek da daal di tegatul kenn ci kanam ku dul sëñ Tuubaa ñu toog ndax li sëñ Saaliw la kon nag loolu pas-pas boobu 76 le 25 avril 76 ak léegi kenn ku nekk gis na tàmbalee ko ci Darou Manane li njàmbaar gi mu fa def lu sëñ bàyyi woon rek benn def na ko fukk wala mu def ko téeméer ba yokk ci neen ndax sëñ bi bi fi jógee ci misaal rek danaa gàmmu Darou Manane asafula danaa gàmmu Mbaba Garaas ak Tiwaawoon ak Bambey waaye sëñ bi daanaka yokku na ci léegi comme ni nga lu fukki barab yoo xam ne fenn fa boo fa demee defe ne fii la moo gën a xumb ba ca daaru a a sori boo fa ñëwoon bu fa sëñ dikkee da ngay jàpp ne fii moom fi nekk loolu nag njàmbaaram la comme jàmbaar ju mel noonu nag sa kanam nag mooy suñu maam Thierno suñu wasila ñu ngi koy ñaanal bu gudd fan te wér te yàgg fi lool suñu kanam ba yàlla may ñu ngërëm xam ne ngërëm rek mooy njariñ ci xam ne ngërëm buñ ko amee dara dootuñu të ñu ngi sant ñëpp nag di leen gërëm bu baax a baax seen ñëw gi ngeen fi ñëw bégg nañ ci lool yàlla na ngeen ko def ay ati at barke sëñ Tuubaa ca saa su ngeen fi dikk ànd ko yokk barke sëñ Tuubaa yàlla mën na ko jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. aouzu billahi mina seytaani rajim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله القادر المريد moom lu ko soob lay def ci ab murid huwa allazi yaf'alu ma yurid doona allazi yuraduhu al murid wa huwa hayyun samadun wa baay subhanahu su kannafin wa waahi nan sant tey feddale sun tawxiid baxda salaatina alal waxiid ta sello yonen yu ñëwoon ci dunya fa hakkadun lan won ku nekk weyn ta seetlu xayrul xalqi ak saaba ki tax ba yàlla bind mboolem jaam teewul mu dem ñu naa wa ma muhammad illa rasulun xat xalat li lu mu doon dunya su doon xayrul wara waa makka dun ko jaali waaye la yóbbu ahmadul makki yoo dellu ahmadul mbakki du bàyyi sun maam ceerno ibrahima kale de xaatimoon yooyu la yaari xew wile ko yetteel fa daarul muxti xew wile dimbete jërë ngeen jëf mbokk yi su ngeen déggee xasaayit yu am solo yi nga xamante ni suñ jëriñ ji yëkkati na ko jëmale ko ci borom daarul muxti ngeen xam ne ñoo ngi fii ci bis bi nga xam ni moom la ñuy fàttali ko giseeb Serigne Touba Xaadim Rasul ba ak euh, taalibeem ba léppam ci moom di maam Thierno Birahim borom daarul muxti tey jii nag ñu koy fàttaliku ñu nekk fii ci kër Serigne Ateex mbake moom Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke yaa xafaar Serigne Ateex yaakaar naa ni ñëpp xam taxawaayam pas-pasam ak bëggam lu baax ak ak dogoom ak ak taalibeem topp ci ginnaaw El Hadji Maam Thierno ci liggéey bu am solo bi nga xam ni moom la defal yaa xafaar di Serigne Cheikh Awa Balla moo tax nag ñu toog kii nga xamante ni doomam la di jëwriñam di euh, Cheikh Mouhamadou Mahfouz moom Serigne Ateex ñu àndanteeg moom. ci suba ba léegi euh, yaakaar naa ni taxawaay bi nga xam am na ko ci euh, kanam way juram am ko itam ci peggu euh, taalibe yi di taxawaay bu am solo waaye itam ñu feggoo ki nga xamante ni mooy Alaaji Cheikh Ndiaye moom itam di kenn ci sëriñ bi moom lañ fas yéene yëkkati kàddu jox ko bés bi sabab bi taxawaay bi waaye itam sëriñ Ateex taxawaay bi waaye itam jëmm nga xamante ni moo di Cheikh Amadou Mahfous taxawaay bi nga xam am na ko ci kanamu taalibe yi am ko ci njaboot gi bisimilah. aouzu billahi mina shaytaani rajim <clears throat> bismillahi mbokki daarul mooti ñoo ngi nuyu ñëpp di teg nuyoo bi ak ziar bi ci loxo sëñ Mahfous Mbacké ñoo ngi koy ziar bu baax di ñaan nga yàgg fi te lool. Euh, di leen présenté rek euh, ñi ñu àndal comme délégation. Mhm. jóge diggante Mbacké ak Touba. Mhm. Euh, di délégation boo xam ne dañ fay ñëw ci turu parti PUR sëñ Mahfous invité woon ñu wax ñu màggal gi. Mhm. ñu teew ñoo ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp. parti bi nag ci côté parti pur bi euh, bu ñu tuddee parti pur rek xel yëpp dem ci Serigne Moustapha Sy mm-hmm. bu sëñ Cheikh Tidiane si Al mm-hmm. kooku nag buñ ko tuddee itam en tant que murit fii ñëw ci Daarul Mooti di kër maam Thierno Ibra Faati di rakki Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu da ngay daal di sa xel day daal di dem ci diggante Mbàkke ak si mm-hmm. lañu bokk te mooy mbokk gu rafet ci réew mbokk gu rafet ci diine waaye di mbokk gu rafet ci deret yàlla boole leen ci géppug boole ñu di ko dund ñoom mag ña ba xale yi yore ko te fas yuñ yéene mu rëcc sëñ Moussa ci taxawaay bu mag a mag a mag digganteem ak waa Touba di ko rafetal lool. Mhm. sëñ Modou yore loolu. nga xam ne ci wàllu mbàkke lu teew lu xewti waa woon moom la sëñ bi di yebal. waaw sëñ Modou Abdou Wadoud. Mhm. mu ngi dëkk foofu ci 28 bi. Mhm. kon loolu lu rafet la ndax sëñ maam Maaram Mbàkke moo leen meññ ñoom ñëpp. siyeen yi ak Mbàkke ñëpp moo leen meññ mooy maam mi leen boole kon ñoom li ñu bokk mënuñu ko séddoo mhm. kon suñu sëñ Mahfous yëgalee màggal gi ñu ñëw dal ak moom mbégte lañ ciy am te ku ko waxoon kilifa yi itam buñ ko yëgee nii lañ ciy béggee euh, réew mi nag toll na foo xam ne Mbàkke laaj na ñun ñëpp nga xam ne ñoo féete ci këru diine yi ñu taxawaat jàpp ba delloo mbàttu ca ndaa la ndax tey Sénégal bu amee jàmm dal vraiment mag ñi fi nekkoon di mag ñu baax ñoo ko liggéey mm-hmm. Mbàkke ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax a baax di ñaan ndono li ngeen doon ci maam Thierno Ibrahima Faty yàgg ci seen loxo te ngeen muurloo ko yàlla saxal fi xalifa bi euh, ñoo ngi koy siyaare Mbàkke ku baax la ku bari xam-xam ku bëgg ku yaatu ku tabe muy Serigne Bassirou Anta Niang Mbacke di ziare waa këram tàmbalee ko sëñ Moustapha ba ca këcc gën gi ndaw suñ sang yu baax lañ ñoo ngi nuyu waa Daaru Musti gépp di leen biral canti sëñ bi di leen biral canti parti bi ak di reconnaître ni ngeen ci taxawee rafet na trop yal na yàgg yàlla yàggal taxawaay bi réew mi nag loolu la laaj diine ji li mu laaj mooy mag ñi dox nañ ko ñun taxawu ko ak dundal ko rek moo ñu ci war waaye lépp li jaroon na def mag ñi def nañ ko kon nag yàlla bu dara yàqu yàlla bu dara réer asalaamaaleykum wa rahmatullah mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokk yi ñu leen di nuyu baax di leen siyaare di leen bu baax xëy na bi sëñ alaaj mi di yëkkati nag la sëñ Ameen Mbàkke dugg si moom sëñ Cheikh coro moom sëñ Baara moom Xaadim Rasul bi ngay yëkkati kàddu loo fi lay door ak si léegi nii mu ngi koy nuyu bu baax di ko dalal ak jàmm bi sunu lépp nag ginnaaw loolu it ñi ngi sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba di sant Cheikh Mahamadou Bachir mi nga xam ni moo toog toogaayu borom daaru di sant sëñ Maam Thioro mi fi toog toogaayu suñu Cheikh Obal di sant suñu waajur wu tedd wit di sëñ Ateex Mbàkke xëy na bis bi moom li ko sabab lu ñëpp xam nañ ko muy tukki bi nga xam ni borom sëriñ euh, ku baax ki dafa dafa defoon na ko ba ñibbisi keroog dafa wooloo Cheikh Issa Diène ne ko wool ma Cerno bi Cerno wuysee mbégte man ci amoon ñoom ñaar ba kenn ku nekk sëñ bi jàpp sa moroom di ko xool xool xoolin woo xam ni kenn ku nekk yëngani sa moroom moom euh, xol bu sedd guyu loolee waral tey bisub màggul daaru moxti gi ñoo ngi ñaan nag mbégte mi ci maam Cerno amoon ak sëñ Touba suñu borom defal nu ci xew lu yaatu ci barke si Xadim sant sama mbokk yu baax yi sëñ alaaji mii nga xam ne euh, tey euh, njabootu euh, maam sunu sunu sunu maam Babacar Sy sunu waajur Cheikh Ahmed Tidiane mhm. sunu magit sëñ Moustapha Sy mhm. di nit ku baax di nit ku bëgg lu baax di nit koo xam ni lafi fi maam yi bàyyoon dong lay xentu moom day dundal muy sëñ Moustapha Sy ndaxte ku déglu ay kàddoom wala ay discours am it da nga xam ne ndaw ñi ci boppam mooy yitteem kon nag euh, ñu ngi leen di daalal bu baax di leen ñaanal bu baax lii nga xam ne nii it euh, su mën na ko ci réew mi it tax tey jiit it ngeen nekkal ka fi euh, ngeen teewal ko fi tey ci Daaru Muxti it suñ xol seet na bu baax a baax a baax baax ñun nag moom li ni war ay doomi daara lan te parti buñ gis xam ne daara moo ko lalit ñun mun ñoo xool benn parte lu parti boobu ndaxte kuy wàll yaan da ngaa tëggul kon nag ñu ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa ak borom daaru moxti lépp loo xam ni daal sum euh, ñu ngi koy sàkku ci réew mi yàlla nañu ko suñu borom defal di ñaan réew mi amuk dal te xam ne lii euh, lu ñuy séntu rek la day passé kenn ku nekk xam ne lii sa wareef mooy bu bis baa hmm. nga jël sa carte dem xool kala neex nga wooteel ko dem delluwaat ci kër delluwaat ca kër ga wootiwuñ xeex wootiwuñ xuloo jàmm rek lañu woote kon réew mi daal yàlla na fi yàlla def jàmm ci barke Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf sant nan bu baaxal baax a baax na